وعده نحو المعاني يا أمل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام waaw waa Taha ñoo ngi jaar ñaan yàlla dolli sutura ñu ñëw mayee fi benn rek te daw waaw xam nga daanaka jamono bi kenn wératul moom <laughs> yalla yalla di ci sutura day eh, wax ni shifaa'un li kulli amradin ah kursi yi ngay bind 77 kursi yi ngay bind 77 jël ndoxu limo li nga ngay jënd jëru ngay dem di jënd bitel li nga ngay jënd doom yi pajalal ko sa bop ndox mom ngay def ci safara bi sa goudi nga milenoo da daal shifaa'un li kulli amradin lañ wax neen li day safara bépp tawat tawatu yaram lii bépp tawati yaram lay saafara ci kàttanu yàlla di siril kursi yi da ngay bind ayatul kursi yi ngay bind juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar nga jënd lii moo doom yi nalal ko sa bopp ndox moomu ngay jël def ko ci saafara bi lu mu baax na li ngoom ngay jënd jël doom yi nga nalal ko sa bopp ndox moomu ngay jël def ko ci saafara bi di ko raayoo bala ngaa tëdd sa guddi waaye di nga wér bu sawee yàlla leer na saafara bi ngay jël mën nga koo xooj tuuti ci tuuti ndox mën nga koo def tuuti ndox jël limon li toll ak genn waa litre maanaam boo jëlee fukki limon ak ñeent nga nal lépp di nga am ndox ndox moom ngay def ci saafara bi sa guddi nga toolal sa loxo di ko diwo ci kàttan daal di nga wér incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah tey loolu la ñëwoon pour maye ko ñoo ngi ziar ñëpp jërë ngeen jëf